dama doon xool ba xam sàccuñu sama bracelet yi laa doon xool voilà ngi yi bracelet jàmm la bracelet wërsëg voilà lii moo ko yor voilà yi maa ngi leen di ziyaare bu baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay xam naa dina leen jaaxal bu baree bare lu baree baree baree bare dinañu ne waa ji lu tax nanguwul laal ci mbiru tey bi Euh, c'est parce que jarul laal loolu jarta laal loolu nañ ko jàppee euh, Macky Sall ak mbokkam yi ñu avorté rek jarta laal voilà parce que on se delloo na avance parce que on se dans ce et on va se respecter dans ce pays parce que dans ce ci lii rek la ñuy dox ñun taalatuñu ay pono léegi garder leen seeni ay potolam lamp soit jàmm dina am ci réew mi ñun ñëpp ñu am jàmm wala kenn du am jàmm te Macky on t'attend à pied ferme tant que sonnoo du ñu sonn ñun ci lii la ñuy dox ñu ngi lay xaar boo paree pare nañu boo bëggee bëgg nañu quand tu on est prêt bul dellu ginnaaw ah. delloo nga avance da nga teel delloo avance bi yoon mais ñu ngi lay xaar la prochaine fois yaag say nit incha allah ñu ngi leen di xaar boo leen gisee waa ji il n'a pas communiqué les bracelets ont communiqué les sénégalais ont communiqué cent mille bracelets en quarante huit heures Kopar Express dem ngeen fermé lii tëj ngeen lu ne defe ngeen ne tëj ngeen non non non non on la mer avec ses bras kenn mënul arrêter géej ak ay loxoom bàyyi leen loolu xel amul benn doomu aadama bu mën a arrêter ab géej ak ay loxoom loolu mënta am. demal jël sa ñaari loxo nga taxaw ci diggu géej nga ne da koy arrêté loolu dafa yenuwul maanaa mais comme que Macky sàll du sonn ñun duñu sonn xam leen ne saa bu paree pare nanu saa bu bëggee bëgg nanu saa bu wootee ñu wuyu ko fu mu woote nag nag fu mu ko neex na woote fi mu ne nii ñun dañ ko jox lépp ne ko moom na woote bëre bi incha allahu rabbi ñu ñëw fekk ko ci terrain am duma ko loolu mooy dëgg bàyyi leen layam-layame sénégalais yi boo demee tey ba Sénégal mu am benn minorité buy laaj ne Ousmane Sonko dina bokk wala du bokk ci ay élection seen caaxaan a bari ndax le président Ousmane Sonko tey guddi yii ñu toll ci Sénégal moom mooy décider kuy bokk élection ak ku bokk du Macky Sall c'est pas le contraire bu leen nax seen bopp gis nañu billet màkk yi gis nañu woykat yi sax ñu ngi dem umra léegi waaw makk am na gande makk temps yi tërki ngeen jëloon dem defari seeni ay yii dem defari seeni ay arrière waaye gannaaw ba la ñu leen joxee xaalis ngeen dem defari léegi jox nañ leen ñu ne ngeen dem umra dama gis benn vidéo ndeysaan benn nit bu génne benn video mu ne voilà yonent yàlla nee na ku taxaw fii yonent yàlla nee na ku taxaw fee waxuloo dëgg de yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa nit ku dëgg ku jub te ci dëgg rek lay dox bépp doomu aadama bu nekk fii di noot ay doomu aadama di sàcc alalu doomu aadama yi di fen di wuruj di comploter contre doomu aadama yi boo dee safara nga jëm bu leen yaakaar ne màkk dina leen génnee ci loolu Sénégal rek laa gis nit kuy tëddee jabaru jàmbur ba fajar pare sangu set jël avion dem màkk mu ne day dem umra pour yàlla jéggal ko yàlla du la jéggal ay bàkkaar yoo xam ne yow yaa ko tey di ko continuer bu ñu paree dem tëddeewaat ay jabaru jàmbur encore ba mu doy bu ñu paree ñu demaat umra bu dee ja jigéen yi tamit même chose tëddee jëkkëru jàmbur suba ba ngoon jot ba mu doy sàcc alalu réew mi partagé comploté def ay ñaawteef ba mu doy ngeen ne da ngeen di dem umra xanaa yéen da ngeen di vacances yi makk am na vacances dinaa leen jox benn xiisa euh, maanaam benn exemple benn doomu aadama bu mag il a il était il de presque soixante-dix ans nee na dafa masa naan mandi dafa masa naan mandi mbéj yaayam dafa masa naan ba mandi mbéj yaayam ba mu mbéjee yaayam dix ans muy aji mak damay génnee lunettes yi pour ngeen gis bët fukki ak muy aji mak fukki at yooyu yëpp saabu bu aji jee màkk ba ñibbi mu gént ne yàlla nanguwul ajam fukki at muy aji màkk saabu bu aji jee màkk dem ñibbi mu gént ne yàlla nanguwul ajam aju màkk dangay gént yàlla nangu na sa aj wala yàlla wan la ay misaal ne nangu na sa aj manu leen toroxal doomu sénégalais yi nekk di yàq suñu réew mi di sàcc suñu alalu réew mi di toroxal doomu sénégalais yi yaakaar ne yéen boo leen demee mag yaa ni yàlla day nangu seen aj déedéet makk am na vacances comme réew yi yëpp manu leen sàcc alal réew mi toroxal doomu sénégalais yi di rey sénégalais yi di di suñu xel yi di def lépp loo man ci bon di wuruj di waraj boo leen paree ngeen gàddu seen ay avion privé ak seeni i seen ne sais ngeen feesal ay avion ngeen ne yéen da ngeen dem aji mag yàlla du nangu aju naa fekk yàlla du nangu aju naa fekk ma wax leen ko loolu dama leen ko bëgg a yàlla du nangu aju naa fekk al munafiquun yàlla du nangu sa aj dem leen ngeen aji màkka bu leen neexee dem leen ngeen umra vacances yi leen c'est normal mënoo sàcc toute l'année bu la neexee nga pare rek ne yow da ngaa dem màkk da ngaa umra ji yàlla day nangu sa umra non non non man ngaa toog sa biir dëkk di ñaan yàlla mu nangul la ko man nga toog Dakar wala nga toog Kaolack wala nga toog Mbuur di ñaan yàlla mu nangul la say ñaan yéen ngistal moo leen yóbbu màkk aj yóbbuwu leen fa umra yóbbuwu leen fa te yàllaa ngi gis lépp te yàlla mooy atte lépp te incha allahu rabbi incha allahu rabbi yowmal qiyaam dina ñëw te yàggul dara it's only around the corner gars yi li taxoon ma def live bi ma yegg ci ma jox leen ci benn cinq minutes waa ji Aboubacar Sadikh Bèye mu tudd mbay Bèye lañ koy tuddee moom moo nekk titre live Aboubacar Sadikh Bèye ñu tuddee ko mbay Bèye moom mooy titre live Aboubacar Sadikh Bèye c'est un statisticien statistique lay liggéeyee moom la Macky Sall jël port la nekkoon DG port mu yóbbu ko statistique voilà statistique boobu ñu ko yóbbu moom Macky salla li tax mu yóbbu ko statistique c'est pour mu dimbali ko mu sàccal ko ay élection donc moo tax mu important pour ma ne sénégalais bu kenn nangu def recensement avant élection yi deux mille vingt-quatre bu benn doomu aadama nangu def recensement pas de recensement avant deux mille vingt quatre parce que boo leen defee recensement seen données yi yooyu lay sàcc pour mën a sàcc ay élections yoo xam ne d'ailleurs Macky Sall du ci bokk mais Aboubacar Sadikh Bèye Macky préparé na ko jox na ko jumtuwaay yi mu soxla yépp jox na ko alal bu mu soxla yépp temps yii nag mi ngi waaj a def tour ci télé Sénégal yi gis naa ko télé maki Macky programme na fa ak yeneen télé pour def tour le tour de télévisions du Sénégal bu leen nangu def benn benn benn bindu ci tappaleem yooyu muy def yéen continue leen bindu rek bu leen nangu recensement bu benn sénégalais nangu recensé wu Aboubacar Sabir Bèye ay sattum élection lay waajal c'est un statisticien buñ ko nangu on l'acceptera pas duñ ko nangu mi ngi dox télé Sénégal yi mi ngi waaj a wër télé yi pour fen pour wuruj ak waraj pour sàcc ay élection loolu la ko Macky di doyee te duñ ko nangu incha allahu rabbi benn recensement buñ ko nangu diggante léegi ak élection deux mille vingt quatre parce que moom loolu moo ko tax a jóg loolu lañ ko bëgg a yónni loolu mooy mbébétam loolu mooy li nga xam ne loolu la ko Macky sant pour mu sàccal ko ay élection te pour mu sàcc ay élection il faut mu am ay chiffres yu mu am pour mu mën a manipuler chiffres te bu leen fàtte même nit ki moo sàccoon élection deux mille dix neuf yi donc bàyyi leen ko xel bu baax a baax a baax di ngeen ko gis nag muy wër télé Sénégal yi taa yi di duula ka dajale rek waaye bu ñu nangu kenn naxatiñu waa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.